Abdoul si sous-préfet bu arrondissement bu Thiès Nord. carte yi comme ni ngeen ko xamee dañoo mettre en place li nga xamante ni bi mooy commission administrative euh, moom mooy saytu carte yi moom moo koy joxe commission boobu def nañ ko ay euh, def nañ ko def na yàgg na 45 jours avant euh, fii may wax ak yow commission mi ngi fonctionné mi ngi joxe carte yi nit ñaa ngi koy jël si. waaye nit ñi ni ñuy jëlee carte yi nag ni ñuy jël see carte yi maanaam néew na Euh, fii may waxeeg yow ci juróomi junni ak euh, fanweer ak juróom-ñett carte yi ñu jotoon euh, liñ ci jot a jël juróom 3363 maanaam ñetti ñetti junni ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett lañ ci jotagum jël mu des junni. ak juróom benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom loolu mooy li nga xamante ne bi moo nekk fii di carte d'électeur en souffrance au niveau du service ñuy ñaan nit ñi nag ñu ñëw continuer di ko jël si ndax may préciser aussi commission bi dina continuer di fonctionner waaye samedi la ñu koy arrêté bisub élection bi kenn du ci joxe carte électeur liñ ci amoon nag jotoon nañ cee am juróom benni euh, euh, ñetti junni plutôt ñetti junni ak juróom ñetti téeméer ak fukk ci carte yi waaw carte électeur yi ñu jot yi nga xamante ni mi jot nañ ko muy jóge dakaar liñ ci jot moo nekk juróom benn euh, ñetti junni ak juróom ñetti téeméer ak fukk li ñu jot a joxe mi ngi toll ci ñetti junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk muy 3240 globalement juróomi junni la wax naa ko sànq globalement juróomi junni xam nga carte yi dafa am carte yu yàgg ak carte yu bees bu dee primo votant yi ñu ngi ci ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk la ñu jotoon liñ ci jox liñ ci joxe juróomi euh, ñetti junni la ak ñaari téeméer ak juróom benn fukk maanaam 3240 donc fii may wax ak yéen juróomi junni euh, juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk lañ ci yor ci ñi nga xamante ne mooy primo votant waaye globalement juróomi junni la woon ak fanweer ak juróom-ñett waaw ah, matériel moom jot nañ ko bu yàgg ndax xam nga élection yi xëy na peut-être dañ ko budul woon report bi nii euh, ñun daanaka pare woon nañu pour organiser ndax euh, ministère bi jébbal nañu matériel bu yàgg-yàgg te itam def nañu conditionnement bi ba fii may waxeeg yow li ñu naan matériel lourd muy euh, isoloir yi yëpp yóbbu nañ ko ci lieu de vote yi li fi des mooy urne yi rek ak petit matériel bi loolu yëpp nag def nañu conditionnement bi muy bulletin yi muy encre yeeg lépp def nañ ko ci urne yi ba nga xamante ni bii bu subaak jàmm incha allahu rabbi comme ni ko loi bi santaane 48 heures avant ñu commencé yóbbu li nga xamante ni bii mooy matériel bi ci lieu de vote yi. kaaraange bi aussi ci wàllu woowu comme ni ngeen ko constaté euh, jël nañu matukaay yëpp euh, ci ndigalu sunuy kilifa. bu soobee yàlla suba ajuma euh, lépp loo xamante ne bii euh, lieu de vote la ci arrondissement bi danañ ko sécuriser ñoom danañu dem ci ci bërëb yooyu sécuriser ko bu ko defee bu ñu sécuriser ba pare ñun ñu doog a tàmbali yóbbu li nga xamante ne bii mooy matériel électoral pour permettre citoyens yi ñu voter. bu dee carte électorale bi euh, ñu ngi ci fukki lieu de vote maanaam bërëb yi ñuy voter. fukk ak juróom-ñeent maanaam 19 bërëbu wote yi wotekaay bu dee bureau de vote yi ñu ngi ci téeméer ak fukk ak juróom-benn 116 ci ñi nga xamante ni bi nag ñooy vote ci arrondissement bi ñu ngi tollu ci 60 000 benn fukki junni ah 60 60 000 63 000. juróom benn fukki juróom benn fukk ak ñett 420 juróom benn fukk ak ñett ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar fukk waaw donc 63 420 loolu mooy li nga xamante ni bi mooy électeurs yi nekk fii ci arrondissement bu Thiès noonu ah, yemb na ndax ñun tàmbali nañ bu yàgg mm. waaw fii may wax ak matériel bi yëpp conditionné nañ ko dañuy xaar suba bu soobee yàlla ñu commencé déployer matériel boobu ci lieu de vote waa bureau yees yi parce que élection yu mujj yi ñu def muy élection législative ñu ngi tolloon ci euh, téeméer ak fukk bureau waaye xam nga gannaaw ni nga ko waxee léegi primo votant yi dañuy inscrire ñu ubbi woon période boo xamante nit ñi dañuy bindu donc machine bi dafa générer ay bureau de vote yu bees donc ci wàllu woowu am nañ ci juróom benn bureau yu bees fii ci arrondissement bi waaw donc muy euh, Gabriel Ndione ci la bokk am na ci benn bureau boo xamante ne bi yokk yokk na euh, muy aussi saa ci la bokk dispensaire municipal maanaam ñu noon ko école capitaine Moussa Diom ci la bokk sëriñ Assane Fall ci la bokk sëriñ Issa Dem ci la bokk Conar Pël itam ci la bokk donc ci juróom-benn kii eh, eh, lieu de vote yooyu fu ci nekk am na benn bureau de vote supplémentaire a ñaax ah, bi rek mooy on est à ni nga ko waxee léegi 72 heures euh, de l'élection présidentielle euh, di wax rek nit ñi nañu jël si d'abord seen i carte ndax fii may wax yow am na encore ay carte fii ci commission bi ñu ngi nelaw donc képp koo xamante ni bii bëgg na voter na ñëw jël si kartam ndax bisub élection bi kenn du ci joxe carte ñaareel bi ñi ngi ci cëppaandawu campagne électorale bi di ñaan rek nit ñi ñu gën a dal ndax jusqu'ici na wax fa dëgg yàlla sant yàlla fii ci cees amul benn incident majeur boo xamante ni bii noté nañ ko bi au contraire ay caravane dañuy daje waaye nit ñi dañuy saafonte loolu nag ñu ngi koy rafetlu aussi ñuy ñaan yàlla nag loolu mu continuer ba ci élection ba sax bésub élection ba ba ñu génn sax élection yi ndax nag Sénégal ñoo ko bokk euh, jàmm ci la lépp xaj di ñaanal ñëpp également une bonne élection euh, présidentielle yàlla ku mu tànn ñu xam ne moom la réew mi mën a naat jërëjëf oui euh, je voudrais vous remercier d'abord Euh, concernant le retrait des cartes d'électeurs, effectivement, ça se euh, nous avions euh, en place euh, la commission depuis très longtemps. Euh, alors, les cartes nous sont parvenues. Et au moment où je vous parle, le retrait se poursuit. Et le dernier délai, c'est demain. concernant justement ces cartes-là, nous avions reçu un total de 5038 globalement. Euh, pour ce qui est des cartes distribuées, euh, nous en sommes à 3363 et il y a un nombre de cartes de 1675 présentement au niveau de la sous-préfecture. Euh, donc ce qui fait un taux global de 66,75% de taux de retrait. Donc au moment où nous parlons, nous avons 1675 cartes en souffrance au niveau de la sous-préfecture. Et concernant les primo-votants, est-ce qu'ils euh, Oui, concernant les primo-votants, c'est en fait les, euh, le, le, le, le, nouveau stop, à savoir la révision de 2023. Euh, à ce niveau, nous avions reçu 3810 cartes. 3240 ont été retirées et au moment où je vous parle, nous avons 570 cartes en souffrance, n'est-ce pas, au niveau de la commission administrative, ici au niveau la sous-préfecture. Donc vous le matériel électoral Oui, concernant le matériel électoral, euh, tout le matériel euh, a été reçu. Euh, les isoloirs, les urnes, les lampes, etc. Donc euh, le matériel lourd qui a déjà été acheminé, donc les isoloirs au niveau de l'ensemble des, des, lieux de vote. Euh, le petit matériel, nous l'avons reçu également et nous avons fini de faire le conditionnement aussi bien ce matériel-là, mais également pour les bulletins de, de, de, de, vote. Alors tout ce matériel, vous avez, vous avez pu constater de vous-même euh, à l'entrée que tous ce, euh, ces urnes ont été voilà, hmm, mis en place. Euh, donc euh, tout est fin prêt. Voilà, on attend que demain euh, pour euh, peut-être procéder à la mise en place, n'est-ce pas, de ces urnes, de ces isoloirs et autres. euh, du matériel électoral au niveau, n'est-ce pas, des lieux de vote. Oui, les gens viennent retirer les cartes d'électeurs. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a un stock qui est là. Euh, le retrait est encore timide. Vous savez, le Sénégalais a tendance à attendre euh, les derniers moments. Mais en ce qui nous concerne, nous, nous sommes là. Nous sommes là jusqu'à demain. Et la commission, et je précise que la commission euh, va continuer à fonctionner jusqu'au samedi. La commission ne va pas fonctionner le dimanche, jour de l'élection présidentielle. Donc euh, le dernier délai, c'est le samedi. Samedi, 0 heure. Si on de l'élection, on va parler de la sécurité pour assurer la transparence. Oui, concernant la sécurité, les forces de défense de sécurité ont été, vont être au niveau de l'ensemble des, des, 19. Je précise que nous avons 19 lieux de vote, euh, n'est-ce pas, au niveau de Thiès Nord. Euh, ça, ça à partir de, de demain. Euh, donc, euh, l'ensemble des lieux de vote seront sécurisés à ce niveau. après quoi, maintenant, nous allons acheminer le, le matériel au niveau de ces, centres-là. Donc, concernant la sécurité, l'administration a pris toutes les dispositions à ce niveau. Pour la carte électorale Pour la carte électorale, il faut retenir que euh, l'arrondissement de Thiès-Nord de vote. 19 lieux de vote avec 116 de vote. Donc 116 bureaux de vote répartis dans les 19 lieux de vote. pour un électorat de 63 420. Donc il y a 63 420 électeurs au sein de l'arrondissement de, de thiès Bon, bien entendu, il y a de grands centres tels que euh, le plus grand centre euh, de l'arrondissement et qui compte euh, 10 897 électeurs. Il y a évidemment euh, Serigne Dem aussi, qui est un grand centre. Euh, il y a aussi Gabriel Ndion, l'école Gabriel Ndion. Voilà un peu pour ça. Y a-t-il des nouveaux Oui, effectivement, euh, pas de nouveaux centres, mais de nouveaux bureaux de vote. Concernant les centres, on a toujours les 19 centres qui sont toujours là. mais il y a de, de, de nouveaux bureaux. Si vous allez à, niveau de la bibliothèque de Tchonar, il y a, un nouveau bureau. Au niveau également de, de, de Petit Tchali, pour moi, du dispensaire municipal de Diakhao, il y a un nouveau bureau. Au niveau de l'école Gabriel également, nous avons un nouveau bureau. À Kurissa, à Serigne Hassan et à euh, Serigne Issadem. Donc retenez qu'il y a six nouveaux bureaux de vote, n'est-ce pas, euh, au niveau de, de ces